voilà ah, am na solo bu baax a baax njàngat wi nga xamante ne daal di nga koy def par rapport ak sorti wi nga xamante ne le président Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko ci dëkk yi nga xamante ne dañaa daal di sës rek li nga xamante ne moom moo di Sénégal ba ca njëkk di Mauritanie ba ca topp di Gambie bi le mujj daal di nekk fa nga xamante ne ni moom moo di Guinée Bissau mu dem seeti ji ka di président ba di El Mballo sorti woowee tamit nga koy njortu ngir mu daal di koy def ca Mali te ca Mali tamit lu yell la ndaxte coopération bilatérale yi nga xamante ne dafa dox diggante réewum Sénégal ak euh, réewum Mali loolu nekkul lu ñuy négligé nekk na tamit loo xamante ne dañ ko war a gën a ñoŋal bu ko defee rupture ga nga xamante ni le nouveau gouvernement ñu ngi koy woote ñu mën ci avancer sans plus tarder euh, Kader par rapport ak la réduction des comptes bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi ko daal di sàkk ngir ñu daal di génnee ay rapports yi nga xamante ne OFNAC IGE cour des comptes ak IGF ñoom ñëpp nañu daal di publier li nga xamante ni moom moo di rapport yi de 2019 jusqu'en 2023 par rapport ak publication des rapports yooyu noonu ban jàngat nga ci mën a def ci li nga xamante ni moom moo di réduction des comptes bi ah mais <laughs> dafa décision yoo xam ne si ni demande générale la mhm. loolu les Sénégalais ñoom ñoo souhaité woon xam lan moom moo xew ci li nga xamante ne ni moom moo mhm. sociétés DG yi nga xam dañ leen épinglé en même temps que certains ministres lan moom moo xew ci wàllu foncier bi lan moo xew ci wàllu exploitation pétrole bi ainsi de suite parce que y a énormément de dossiers yoo xam ne seeni ni benn bu ci nekk dañuy wax ni am na ay scandale mhm. donc suñu ordonné pour que nañ ko publier en tant que sénégalais boo xam ne si ne vraiment bëgg nga dëgg il faut que nga nangu il faut que nga saluer ko mhm. léegi nag la finalité de tout ça après lan lay doon mhm. comme li ñuy wax wiiri wiiri ñaari ndaare déglu yëkkati benn situation benn problème ñu tàccu toog di xaar la finalité après ñu jël ko dugalaat ko ci suraale continuer mhm. non warul nekk benn yax boo xam dañ ko sànni Sénégalais ñu nekk di ko seeñu en attendant ñuy paree leneen ñëw parce que on est habitué à des scandales à des situations bu ñëw suul beneen bi bii bu ñëwee suul beneen parce que actuellement en un mois Euh, les propositions yi nga xam ne moom la fi le président Diomaye def. Mhm. boo ko toppee da ngay fi mel ni chaque trois jours da ngay am benn. Mhm. donc en fait doo am temps étudier ko doo am sax temps wu xam la suite c'est quoi parce que bu fekkee ne si ne ni euh, yaa ngi nekk. li nga xam ne si moom mooy le nouveau bi di xool pareeguloo ñu nga gis ñi ngi continuer di nommer des ministres conseillers pareeguloo ci jàngat loolu ñun la fi ñu toll nii kat ñi ngi préparer euh, des pouvoirs. exceptionnel pour le premier ministre. Hmm. loolu war a dem assemblée. yaa ngi préparé fi mu toll ci révision compte yi ainsi de suite donc yooyu ay détails la. Hmm. léegi fi mu toll ñi ngi nekkat encore ci les DG. Hmm. pare gu ñu ci analyse yeeg lan moom moo tax lii lañ waxoon waxuñu ko. léegi nag fi mu toll nii Cour des comptes. dañoo mës publier seulement bu fekkee ne amuñu woon accès ci certains dossiers. loolu am na ay raison léegi nag si le procureur. ou bien mooy nga xamante ne Macky Sall da cee mën nañ ko jàppee noonu. wala waaw non moo ko wax. Mhm. erreur de communication la. et je suis sûr que mi koy regretter ba tey. parce que y' a de ces erreur la. non erreur li café looloy dëgg. moom moo yenn ci ay dossiers maa yëkkati sama coono teg ko ci nii. moom la président mais mais a de ces choses ça ne dit pas même boo ko defee. même boo ko defee moo tax ma la erreur de communication la parce que rëcc rëcc la boo xam ne les sénégalais baalu ñu ko ba tey. Mhm. loolu moom moom tamit la moytool le président Diomaye parce que li ñu baalul woon Macky mooy fi ñu ba tey ñi ngi fàttaliku ni Macky moo ci teg concom mhm. donc su fekkee moom aussi am na décision bu mu jël après aboutirul. Mhm. li ñu doon jugé Macky Sall moom lañ koy jugé et il va falloir que aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy ses militant ak sympathisants et ñi ko jege. Mhm. aussi accepter loolu. effectivement parce que nit mënu fi nekk rek ñu ne ko loo def baax na. Mhm. dem même say erreur baax na. Mhm. eggaguñu ci mën a constater des erreurs mais am nañ possibilité apprécier certaines décisions. et décision OFNAC bi Cour des comptes of ak ñoom ñëpp vraiment. nañu génnee li ñuy génnee aussi su fekkee ne si ni nii gis nañ dañ leen a war a topp. mais que quand même na justice def liggéeyam. foofu lañ euh, leen ah. foofu gisuloo ni règlement de compte mën na faa am par rapport ak réduction des comptes bi sur le cas de Mamour Diallo et Ousmane Sonko. bon règlement de compte pour le moment mënuma wax loolu loolu la ñuy xaar loolu la Sénégalais yu bari yaakaar mais état état la. ñi fi nekkoon def nañ lu ñu mën pendant douze ans jeexal nañ su fekkee ne si ne am na ay litiges am na ay différends yoo xam ne si ne dañ ko rangé woon ci trois yi que ça coûtait des milliards contribuable sénégalais ba fu egsi fii. yóbbu ci nit ay procès ñu fanaan ci àll bi ñi ñu dóor leen ñi ñu rey leen ñi mujj foo xam ne neexu leen. Mm-hmm. et que vraiment euh, ñu agsi fii tey. Mm-hmm. donc si ñoom am nañ la possibilité. Mm-hmm. teg preuve bi ci table bi mais nous on est preneur. y a pas on n'a pas besoin de dire que ni réglement de compte la réglement de compte lay doon selon tournure bi muy am mais la décision en tant que telle. mënuñu dul apprécier ko. et que xool lan la parce que aussi moom actuellement bi ñu nekkee opposition bi daan nañ critiquer certaines décisions daan nañ critiquer OFNAC pour des corps de contrôle yi fi nekk yépp que defuñu seen liggéey que justice indépend indépendance de la justice amul loolu lañ leen di xaar léegi nag su fekkee ne si ni li ñu doon xeex étant dans l'opposition que léegi ñoom ñoo nekk au pouvoir. dinañ mën a dindi les verrous. mais on va saluer. léegi nag li ñu dëgg dëgg mooy. nañ dem ba ci kanam. mu ngi noonu parce que dossier yi nga xam ne si ne nii. Mhm. le euh, premier ministre son Sonko. Mhm. waxoon na ni am na lu mu ci xam waxoon ko ba loolu valoir ko sax mu dem ci kaso bi ak li ko ci fekk bon. ba sax mu am ci ay condamnation ci kaaw Mbaye Niang mhm. beneen bi ci leneen la. donc ainsi de suite léegi agsi nañ foo xam ne si ne su ñu amee possibilité publier ko aux yeux et aux yeux tous les Sénégalais. au moins ñu timbali Sénégalais su fekkee am na on su fekkee ne si ne ni amul. ah mais aussi on a on va apprécier. mu ngi noonu saa gis nañu li nga xamante ne moom moo de rapport OFNAC nag ni ni tey man toog naa jàngat ko Pape Malick Ndour mi nga xamante ne moom moo di jëwriñ ji yoroon wàllum jeunesse ñu épinglé ko ci li ne moom moo di rapport boobee rapport bi daal di génn euh, OFNAC moom moo daal di def boobule publication li nga xamante ne ne moom moo di rapport ba ñeel coowal 29 milliards yu ah, Prodac ca jooju le jamono moom hmm. Pape Malick Ndour moo nekkoon le coordonnateur foofee nga xamante ne moom moo di ca Prodac ñu daal di ko ci ay épinglé tudd ko ci coowal xaalis gisuloo ne pënd ma bis bu wuree loxo dana dar gémmiñ ah bon loxo kay dar na gémmiñ ba pare nga euh, OFNAC li ci li ci doy waar mooy dafa am lu Ousmane Sonko waxoon. Mhm. gars yi ñëw ne du dëgg. ne amul rapport moom taxaw na ne am na rapport. Mhm. Euh, Amadou Ba wax ko. Mhm. pourtant même Abbas Fall wax ko. Ousmane Sonko wax ko. mu ay bëgg doon wuri sarax. léegi ci foofu lan ngay gis parce que boobu am na lu ñu tegoon. bu ñemee dañ laa jéem. Mame Mbaye Niang doo taxaw attaqué ko porté ko plainte ak yu demee noonu. ñu mm-hmm. tegal ko li ñuy wax sëgg ndee siggi dee. Mm-hmm. muy épée de Damoclès waxal ne am na ñu teg la loo xam ne dañ ne dañ ko estampillé secret d'état. mënoo mm-hmm. ci dara. nga ne nangam ñu ne la da ngaa diffamé diffamation nekkul ne rek da nekkul ne da ngaa fenal waa li ngay wax mën na doon dëgg ba pare nga diffamé ko. effectivement mais nag est-ce que mën nañoo diffamé ministre. ku nekk ministre liggéeyal as alalu askan wi ba pare. Mhm. ñu eh, wax ko tudd ko baaraam ci li muy liggéeyal askan wi mu ñëw taxaw. loolu li mhm. gën a am foofu obligation la nga rendre compte wane ne nangam parce que au moins buñ ko xasee yëkkati kaw am na xel yoo xam ne mi ngi commencé mhm. di jiixi jaaxa loolu defuñ ko ñu daal di xëy indi. Ousmane Sonko taxaw di laaj ay preuve Ousmane Sonko euh, parewul pour parce que xam nañ ñu ko tegal mais Clédor seen ak euh, Birahim Seck gis nañ leen ñu dem taxaw ci kii bi kenn newu leen donc sax ñu dem ñibbi loolu da ngay xam ne ay tappale la mais nag yàgg bawul dara. Mm-hmm. ñu bare bari euh, gisoon nañ ne ñu doon wax Ousmane Sonko. Mhm. tey ndekete OFNAC joxoon na ko dëgg. mais noon ngay waxee ba ci 94 milliards yi nga xam ne moom la waxoon. te foofu euh, voilà foofu moo foofu sax la euh, Ousmane Sonko gën dem plus loin. Mhm. parce que dafa dem ba mettre sécurité am maanaam tey liberté mhm. mu teg ko ci mbir mi. parce que dafa ñëw wax ñu dem ensemble nañ koy setal. moom mu ñëw porter plainte. si pas procureur. parce que da ngay dem ci six des rituel bi mooy foofu nga xam ne yow da ngay constitué wu automatiquement participer. foofu boo waxul dëgg maanaam tey bu ma tuumaalee sëñ Kader yóbbu ko foofu. bu ñu demee tribunal su ma waxul dëgg moom day yóbbu ko ñëw topp ma man maa dem kaso. moo tax foofu dafa risqué. mais ñu dem xam ne foofu du wax ne ko amoo intérêt à agir. kan la wax amoo intérêt à agir xoolaatal yooyu tappale moom mu jël mbir mi dem jéggal jébbal ko OFNAC mhm. laa boobu soxna na Seynabou Ndiaye Jaxate moo fa nekk mhm. kooku lañ bët xool si li nga xam ne ñi xamoon li ne ci rapport bi parce que foofu euh, euh, li sëñ bi di wax sànq xam nga Cour des comptes mhm. moom sañ naa jébbale def rapport ba pare mais day jébbal njiitu réew Mm-hmm. kooku moom moo ko war a publier wala mu xool ndax waru ko publier wala yu demee ak IGE ak yooyu. Mm-hmm. mais par contre OFNAC moom mën naa jébbal njiitu réew mi ba pare may ko ab diir bu publier wul mu publier. Mm-hmm. boo xoolee Nafi Ngom Keïta noonu la def ak Macky Sall. bi mu toogee ab mu publier. mais après dañ ko dàq indi Seynabou Ndiaye Diakhaté Seynabou Ndiaye Diakhaté bi mu defee kii ba jébbal ko Macky Sall Macky Sall na ne mi ngi koy saamandaay ne fa mbokkam ma jaar muy Nafi Ngom Kayta jaar fa lay jaar mu mhm. tebbi ko fa laata muy publier ñu jox a la taxaw di seetal ay wane ne yenn erreur wala la ko soxna si tontu ba rapport yi ñu la yi la jox nga dem ko procureur moo gën ñun def mhm. nañ suñu liggéey moom la loo xam ne yaa ngi ko teg au lieu nga génne ko il a fallu ko président Diomaye Diakhar Faye ñëw sàkku ci yow nga publier ko yow askan wi moo njëkk a ci yow parce que loi bi ju tege of nag dafay wane da nga war a nga lànk nga doo koy publier ba pare. Mhm. ñuy wax yi nga defal sa bopp te yi moom yi mu mooy yi nga xam ne moom la fa soxna ya bàyyi. Mhm. maanaam li fa Nafi Ngom bàyyi ak li fa Seynabou Ndiaye Jaxate bàyyi bàyyee mhm. yooyu lay doog a publier mais yi defal boppam. li ci ëpp lan la nee nañ ci tur nee pour des raisons <laughs> non non non non xoolal nit ki dañuy wax li nga xam ne moo am. Mm-hmm. bu mbir mi jubee nañuy taxaw ne li ak jub la. Mm-hmm. Basirou Gueye li mu def yëfi ku juba di la. Mm-hmm. parce que dañ laa enquête loo ku wal mburu tu tudd dëkk mbaa nga jaxasay bokk. maanaam bas dafa jaxasay bokk. xamul kan mooy kan kan mooy kan. loolu moo ci am kon li ci neex mooy ndekete of nag joxoon na dëgg président Ousmane Sonko. loolu moo ci nekk léegi nag suñ koy jël. dañu te loolu laa jàpp ne mooy mooy fexe ba séparation de pouvoir am. fexe ba nga xam ne l'exécutif seen yoon ci loolu ñu dem lijjanti leneen ku justice jàpp sëñ Kader a ngi ñu taxaw di xool. mais man sama